الحمد لله البديع الأكرم وصلاته أبدا على ما الغميم سيدان رجيم يعني أهون سبيك وسيرة همين سيدان رجيم ربي أهون سبيك من هما سياري سياتين وأهون سبيك ربي أني هدر وتهال كلامي راسدا أمور سيدا وفكرتي نبير بخل بأرسدا سدد لساني نبير جناني سفي أماني وسيد براي بوكو جلدين بوكي طالبي ينين يبوح تدين جار تدلان بالاق تدلان بالاق وفينا موي بورو سي أحمد بامبا خادم رسول مي حاني موني كون فيتي توبا تيان جلوف 1907 1912 كم خير ينجي نسيان نك وحنا ني مغني نكونو جلتنجي دانك يم دانك ينفي nee na Cheikh saa Diène moo ko tabaxal seen bi moo ko ci daan liggéeyal comme mburu mu muy jëfandikoo yooyu xam naa nag li si gën a kii après day na xool suñu Cheikh Sarr rek mu gën leen a yaatal histoire bu baax baax te damaa xaw a kii tuuti maa ngi jégalu def. ci xeer yi Cheikh Issa nii di xeer yi waaw yii ni daal nañ wax ni moom moo ko moo ko fi def. waaw waaw waaw mag ñi ñoo ko daan jëlee te ngay daan ko indi fii. daan daan ko yéen waaw waaw mhm. Cheikh Sa Diagne moo fi nekkoon ak sëñ bi daan ko daan ko ci liggéeyal ay mbuur ak yooyu. fi mu nekk euh, euh, nag moom xam naa taxul ma jàpp ko mais xam naa daal. Ah, sëñ bi waaw sëñ bi waaw 1907 1912 daal moom mii fii moom waaw loolu daal. fi mu ne rek ci loxoy kan la nekk. ci loxoy sëñ Cheikh Sarr la waaw Cheikh Sarr waaw Cheikh nekk waaw. <laughs> daal si jot jàpp de dëgg yàlla asalaamaaleykum wa